benn waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu njoloor gi dina bon li ñuy waxtaane tey jéye ja xew foofe ca mbuur tukkuleur ñaari nappkat daal ñoo doon laale ba kenn ki faat moromam ci loole nag ki nga xamante ne rek moom lañ tudd ci njombe boobu jamono ji ñuy wax ak kenn police teg na ko loxo yaayu ki ñu faat nag di ngeen ko teewlu ci biir xibaar yi le dina bokk ci lu leen lu ñuy waxtaanee député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly moom jamono ji ñuy wax ak yéen moom tamit euh, yoon teg na ko loxo gannaaw kàddu yi nga xamante ne yëkkati woon na ko rek bi opposition bi doon amal. ab manifester foofu ca place euh, de la république ñu ne nag dafa yëkkati woon ay kàddu yoo xamante ne rek dañu jàpp ne dafa waroo ak li yoon digle dinañu wax tamit ci taxawaay bi nga xamante ne rek. ancien militaire invalide yi jamono ji ñu wax ak yéen ñu ngi koy dund gannaaw bu ñu amelee ab manifeste rek ñu doon doon tuumaal rek ne boo mooy dañu naroon faat ay nit ñeent lañu jamono ji nag tax nañ leen loxo ba tax rek seen kuréel boobu di anamis jamono ji ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi rawatina njiitu réew mi. ñu amal ci ab njégal dinañ wax tamit ci jàkkaarloo bi dox diggante ministre des de et du budget di Abdoulaye Daouda Diallo moom ak taskatu xibaar yi bokk na ci xibaar yi fa bàyyeekoo nag ñi nga xamante ne moo aju ci wàllu meññee yi ñu ne yëkki nañ lu toll ci ñeenti milliards ci suñu xaalis dugal ko rek ngir lépp loo xamante ne mu aju ci wàllu fëriñ bi ñu mën ko taxawu ba baax a baax bi askan wi tamit. duñ koy yëg ni mu gën a méttee mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaar yi boo leen taaxirloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum ni ñu ko waxee woon ci ponk yi jiinil kanaaw jéye bi nga xamante ne moo xew foofu ca diwaanu Mbuur Tukulóor foofu nag ñaare nappkat ñoo doon laale ba kenn ki faat moromam Pape Ndiaye nag moom la ñu jam ba mu ñàkk bàkkenam ki ko def nag jamono ji ñu wax kenn yéen teg na ko loxo way juru ki ñu faat nag waa juróom bu jigéen yëkkati ne ay kàddu rek mooy yaayu Elimane Ndiaye ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Diallo jógee ay 5 heures 6 heures ñu toon jabaru magam bi ne ko na reer bi tàng maa ngi ñëw ma ne ko il faut jëm mu ne ma sama kër maam laay dem maa ngi ñëw léegi man ma tëdd mais bi ma tëddee nelawuma magam bu jigéen bi sama taaw mu jékki-jékki na ma yaay man de sama biir bi day metti di daw ma ne ko man de sama ndiggi lay metti rek jàpp sama biir bi mu fekk ma ma soonu ci sama lal bi sama yaay mi daal di oote téléphone oo ngóone ne ko waxal binte ilimaan dañ koo jam ne ñëw ma di tëb magam bu góor bi tamit daal di ñëw ne ma yaay génnal ñu dem ni surtout ñu dox rek xale bi woowaan ñu ne ma nee na ngeen gaaw ma ne xale bi composé nga jox ma kii téléphone mu composé jox ma mu ne ma neexul ba neexul waaye dañ koo rey nijaayam la àndaloon léegi bi mu àndeek nijaayam moom mu toog di xaar nijaayam ci pono bi kër ñoom kii mu fekk ko fa ne ko booy la ngay def fii mu ne ko Aziz laay xaar mu saaga ko ndey mën na ko bi mooy deux fois nga may saaga boo ma saagaatee dinga xam mu saaga ko ñu songoo xeex bañ àtte leen xale bu góor bi daw dugg seen kër jël sison jam ko ko am na 26 ans moom da doon liggéey na yoon def liggéeyam rek xam naa li day génn li may wax duma ko nëbb lii jàmmam nañ ko tëj giiru dundam parce que neexul tamit dafa metti ñu rey sa doom ba pare yaayam naan ko tëbal nga daw mu mel ni du jullit. ñu wax rek ci leneen lu xewoon bés bi ñu doon manifester foofu ca place de la république te parti yi fest ci kuje gi doon ko amal ki ngeen di gis nag ci nataal yi mooy euh, député bi di Cheikh Abdou Bara Dolly yëkkati woon na fay kàddu rek jëmale ko ci njiitu réew mi. kaddu yooyu nag dañ ne woon dafa wóoroowul ak yoon tegginewul ba tax rek ab procureur euh, jëloon mbir mi jamono ji ñuy wax ak yéen nag député boobu euh, teg nañ ko garde à vue ñoom nag euh, dañ koy toppe rek offense au chef de l'État ak yëkkati kàddu yoo xamante ne daanaka dara amu ci. ñu wax euh, ci leneen maanaam nekkinu militaire invalide yi maanaam militaire yi nga xamante ne dañu nekkoon ci rang yi te jëlee fa ay gaañu gaañu wala sax ay feebar jamono ji nag dafa am ñeent si ñoom ñoo xam ne ñu ngi doon amal ab manifestation ñoom nag dañu leen jiñ ne rek dañu bëggoon sax faat ay nit ba tax rek ñu tegoon leen loxo ñeent yooyu bokk ci anamis moo tax nag jamono ji seeni i kilifa wala ñu leen jiite rek di sàkku ab njéggal rawatina ci njiitu réew mi ñu baal leen rek bu ko defee ñu xool mbir moomee nuñ ci taxawu ci loolu nag dañ ciy teewlu El Hadj fallu Thioune moom mooy porte parole anamis ci micro Chérif Dia. dëgg d'humeur boo xam ni dafa am fële si sunu locaux yi mu aussi au niveau de l'office national des anciens combattants mouvement bi nag avant muy jégit wax dëgg yàlla président Issa joxe woon na instruction pour ñu arrêté ko ndax fii ñu toll ci jamono nañ def point de presse rek leeral ñëpp mu am ay heure ñu am ko diggante ak police euh, bu les forces de police donc mu am ay arrestation force de l'ordre yi daan ni bon ñoom bi ñuy sànni essence essence bi euh, laal na leen te bu nu bërëngoon pneu bi alors mën na leen a taal ñoom moo tax ñu ni kon tentative de meurtre ñeent lanu te aussi li tax ñu jàpp leen ñun gis nañu euh, charge yi ñu teg ci ñoom sarge yooyu nag yàlla moom moo xam mais charge yooyu bu fekkente ni gis nañ ko nag dafa diis diisaay boobu nag moom moo tax ñu ni dinañ ñëw lancer message à monsieur le président de la république lancer message à l'autorité militaire et de surcroît aussi l'autorité policière jéggulu leen euh, boo yoree njaboot ñu téye leen yow la nga war a njëkk a def mooy dox tànk jàmm wax jàmm ba sa njaboot dellu si waat ci yow leneen looy toppaat nag ba tey ci jàmm nga dox. mooy El Hadj Fallou di porte parole kuréel boobu ñuy duppee ANAMIS jiite militaire invalide yi ñu wax ci leneen. rawatina ndaje bi naroon dox wala biy dox diggante ministère des finances et du budget di Abdoulaye Daouda Diallo doon na tase tey ak taskatu xibaar yi ñu naan ko le gouvernement face à la presse bokk na ci li fa bàyyeekoo taxawaay bi nga xamante ne nguuru Sénégal jël na ko ngir lépp lu aju ci wàllu farine bi ñu taxaw meññee ñu ne nag lu toll ci ñeenti milliards ci suñu xaalis fas nañ ko yéene yëkkati rek ngir lépp lu aju ci njëg li ñu mën ko réglementé ñu ne nag li waral jafe-jafe jooyu moom li xew jamono ji ca Ukraine digganteem ak réew Russie. ñu dem ba ci diwaanu Thiès wax ci li ñu duppee renouvellement du parc euh, automobile ñu ne nag jamono ji ab na ab phase pilote ni ngeen koy gisee ci euh, nataal yi ñu ne lu toll ci juróom fukki minibus lañ jébbal ñi nga xamante ne ñooy transporteur yi féete ca diwaanu Thiès ki amal ni mel di ministre des transports terrestres di Mansour Faye ñu ñëwaat ci ndaje bi andi ceeg euh, Cheikh Anta Diop ak Seylatir car la ñu jagleel transporteurs yi nekk fii ci diwaanu cees loolee sabab bi moom mooy dañoo bëgg yeesal parc automobile bi indi ay oto yees tàq yu am sécurité loolee tax nag jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu transport terrestre nag lii ñépp ci war a taxaw li ñu fi tax teew mooy joxe caabi yi nga xam ni juróom fukk oto muy président Mbaye Guèye teg ci secteur bi moo koy sant bu baax ci initiative bi mu jël mu bokk ci initiative bu am solo muy mun nañ ko tuddee nu ñu neexee suñu neexee ñun renforcement la suñu neexee ñun renouvellement la waaye nag ci renouvellement la ñu jëm tey jii Mbaye Guèye mettre na en disposition ak ak des promoteurs oto yi nga xam ni dañuy renforcer wala ñu renouveler maanaam le secteur du transport inter interurbain tegtalu président de la république la nañ ci boole tous les acteurs parce que acteurs yi mënoo def dara te boolewu ci les acteurs projet nag bu amee da ngay accompagner parce que suñu taxawee bañ a accompagner kon kenn du dem boo bañee sa morom dem mu mugg dem te mën a dem nga bañ mu dem kon kenn du dem donc il faut ñu bëgg dem ñu leen di accompagner mais ci yoon nga xam ne yoon boobu la ñuy yoon yoon yoonu état may. président regroupement de chauffeurs bu Thiès rafetlu lool jëf ji waaye li muy ñaaw lu moom mooy gare routière privée yi nanguwuñu ko. mbéy mi sa xel dal projet bi fu yàqoo fii ci ñun. mais niñ ko doxalee la ñu d'accordul gaz privé dafa am fu mën a jaar ba si fii oto yi da dem ca garas ba seen borom fi lañ ko joxe ñu fa yabe fii ci diwaanu Thiès de ne tut ñu yàq fet ji xëccoo ku ci nekk bëggoon wax sa turu regroupement Cheikh Anta Diop bu ñu jógee diwaanu Thiès dañuy utali Sédhiou foofee nag li ñu fësal ci euh, li nga xamante ne moo génnee ci études yi ñu ne rek Sédhiou daanaka euh, lii di feebaru sibiru bu moom dafa sonal askan wi rawatina euh, soxna yi wan lor wala sax tànk yi ba tax na rek ubbi nañ fa ab campagne lancement régional distribution masse mu aju rek ci li nga xamante ne mooy moustiquaire yi ak nan la ñu mën a def ngir taxaw leen Amadou Yéri Camara nag ñëwaat na ci solos campagne boobu ak taxawaay bi ñu bëgg am rek ngir fexe bi loolu aju ci wàllu sibiru dellu ginnaaw ñu teewlu ay kàddoom ci micro Bakary ay at yoo xam ne defuñu ko euh, loolu nag euh, am na ay njàqare yoo xam ne yaakaar nañ ne def na ko mooy yokkute palu bi ak euh, yokkute ndeeteel bi donc moo tax ren ñu commencé waat campagne bi campagne bi nag ren am na benn benn loo xam ne lu bees la mooy dañ koy def ak Gambie buñ ko defee Gambie nag euh, puisque euh, yooyu amuñu frontière dañ koy defandoo en même temps district yëpp nag ci district yëpp ñu xool ñu dëkk ci district bi xool ñaar ñaata famille la bu ñu xoolee famille yi ba pare xool kër yi ba am chiffres yi léegi ñu joxe ay coupon bu ñu joxe ay coupon ba pare valider ko. après nag ñu def dernière état bi mi nga xam ne moom mooy joxe moustiquaires yi. nous avons environ trois cent quarante mille moustiquaires village bu nekk liñ ko war a jox moustiquaire aussi jagleel nañ ko ko euh, dinañ ko ko wax wax nañ ko ko déjà et comité de vérification au niveau régional et au niveau district bu nekk tamit xam na ñaata la am ci moustiquaire te euh, am nañ ko. Euh, bu ñu demee ba toll ci rek ku nekk nañ la jox moustiquaire normalement moustiquaire yi sax ñu ngi ci yoon bi. Euh, fii ak suba xam naa nañ yegg si Sédhiou ñu jox ñi ñu ko war a jox. dina bàyyi foofee nag amoon nañ gan moom moomee di ambassadeur bu Algérie euh, toog réewam fii ci Sénégal moom nag dalal nañ ko foofu waaleem cheb bi euh, gannaaw rek bi mu jaajëfalee ki nga xamante ne mooy xalif bi ci succès bi nga xamante ne mooy diwaanu fële ca Soudan gannaaw loole nag demoon na fa rek. ngir fexe ba mu dugal loxoom ci lépp lu gën a mën a dëgëral diggante ñaari réew yi moo xam Sénégal ak Algérie Pape Mbaye Diaw Faly Diaw Faly Gaye ñoo ñu toggal ca diwaanu Saloum ak li ko jublu ji fi nga xamante nii moo di Medina bàyyi gannaaw bi nga xamante ni xalif bi dafa jubale ay xeet yoo xamante ni ñu nga doon xeex ca Soudan loolu nag ba moo waral ambassadeur bu bees bu Algérie ci Sénégal daal di jagleel tukkim bu njëkk Cheikh Mahi Niass. vient dans un contexte particulier après le le retour. ñoo ñëwoon daal di seet si ki nga xamante nii moo di xalif bi gannaaw ba nga xamante nii def na liggéey bu ci ay fële nga xamante ni moo di ca Soudan jàmm moom dafa loo xamante ni mooy li mooy li gën ci ñun ñëpp. mettre autour de, du rapprochement euh, des deux pays Sénégal et Algérie deux pays frères voisins. Algérie ak Sénégal nag ñoom dañoo yàgg am ay relation yu baax ki ko xamle di xalifu Medina Baye Cheikh Mahi Niass di woo ñaari dëkk yooyu ñu daal di wéyal relation yi nga xamante ni moom la Algérie ak Sénégal daal di seq. xaqiqa kaanat alaaqa Sénégal tamit noonu la mel ci yéen nga xam ne yéenay waa Algérie ah, ah. seen i maam seen i gouvernement suñu relation dafa dëggu te wax dëgg te yéen yéen ngi dugal seen loxo euh, ci tasaare l'islam foo ñu fekk ñu ngi xalaat ñu ñu def avancement peuple bi ci ci fànn yi yëpp moo tax man damay mer su ma déggee ñi nga xam ne dañu jàpp ne l'islam organisation wu jaasi la organisation wu rayante la bu naqata nit ki la déedéet xamul l'islam nangu loolu. gannaaw visite bi nga xamante ni moom la amal ci xalifa ba nag ambassadeur bu Algérie daal di nay visité yenn ci institut islamique yi nga xamante ni moo nekk fii ci dina bàyyi te moom nee na dina leen jàppale ngir rek njàng mi mën a gën a jëm ca kanam. démb lañ doon màggal rek bés bi nga xamante ne dañ ko jagleel lépp lu aju ci wàllu archive ci àdduna bi fii ci Sénégal nag demoon nañ fi nga xamante ne mooy diwaanu Saint-Louis foofee ci fàttali rek euh, amoon nay at yee ñu génn rek ñu taaloon li nga xamante ne mooy centre documentation bu OMVS loolu nag ñëwaat nañ si ba tax ñu ne jamono ji war nañ xool ni ñuy def ngir lépp lu aju. ci wàllu archive ñu koy numériser maanaam jaarale ko ci xarala yu yees yi dañ ciy teewlu Babacar Diong moom la ñuy dénk lépp lu aju ci wàllu archive foofee ca MVS ci micro Ousseynou Diop. li may lu toujours lu dal nit rek war na si tirer ay leçons war na si jàng dara ñun daal luñ si jàng mooy war nañ gën a euh, en tout cas yokk sunu sunu sunu sunu sunu sunu suñuy jumtukaay si numérisation waaw fexe ba nga xam ni. documents yi nga xam ne ay document papier la ñu fexe ba nga xam ni dafay yomb accès ça veut que mu nekk léegi ay document numérique waaw donc loolu mooy grande enseignement bi nga xam ni te loolu ñu ngi siy liggéey depuis des années mais nag saccage yi dafa tax ñu war ko gën a dàbbal ñu gën a accéléré dañuy célébrer lu ñuy wax archive archive mooy ay documents yi nga xam ni euh, dafay raconter suñu histoire suñu passé di ñu mën a egtal jox ay tegtal si nan la ñu war a mën a comporté woo pour suñu yeneen projet yi ñu war a def. ñu wax euh, ci wàllu cosaan ak aada ak biennale dakaar bésub tey ji nag euh, dañ leen di euh, xamaleek Abdoulaye mbay moom nag agent la foofee ca ministère des finance moom tamit day yëngu ci wàllu aar gannaaw ba mu amee diplôme fi nga xamante ne mooy école nationale des arts daan na nag at yi yëpp daanaka bu biennale ñëwee da ciy exposé nee na nag lim ci jublu. mooy fësal liggéeyam jagleel ko public bi waaye tamit ñi nga xamante ne ay collègue am lañ euh, thème ren bi nag euh, bu exposé bi mu ngi ko duppee le fruit de l'amour ñu teewlu ko. administration la muy liggéey foofu ca ministère des finances moom tamit di ab artiste biennale du Dakar bi may na ko mu wane beneen xar kanam wane ne moom mii ab artiste peintre la. man agent ministère des finances et du budget la donc mais nag euh, formation bu njëkk a def en 2004 euh, artiste peintre plasticien la waaw léegi nag may boole ñu comme loolu passion la nag ma koy boole ak liggéey bi. moo tax ma def fi nag euh, si ay biennale des arts bu 2018 ma defee ko ministère des finances ma réussir bii tamit ma ne naa ko fi defee tamit wane samay kilifa. naka la def ngir mën a boole ni muy taxawee foofee ca ministère des finances ak itam. li muy yëngu ci wàllu cosaan ak aada. Euh, man su ma liggéey wàccee léeg-léeg mu wàcc ay 17 heures 18 heures 19 heures damay nelaw une heure temps ba deux heures temps ñaari waxtu yooyu su ma nalawee mën ma jàpp nag ma liggéey ba ay 4 heures ba 5 heures matin mën a enchaîner ñëw liggéey si. parce que xam nga loo bëgg rek euh, da nga kii daal da nga ci def ak xol. te tamit dina permettre aussi tamit ñoo bokkal fii moo leen liggéey maanaam ñu génn toujours bi ko ci li ñuy dund jaarale ci famille bi ak li ko wundu yëpp loolee sax la dëxëñ ci bile exposition. thème ren bi mooy les fruits de l'amour waaw maanaam gàncax yi génn ci mbëggeel waaw bi nag euh, jëkkër ak jabar la ñu wax euh, ñu marié maanaam mbëggeel bu ñuy dund loolu lañ ci njëkk a wane te tamit ak njaboot bu ñu si am njaboot ji nag moom mooy les fruits de l'amour njaboot joo xam ne dañu war a jàppale ñu jàng bu baax. Euh, protéger leen. biennale Dakar bi nag mu ne ab ndaje bu am solo la rawatina pour artistes plasticiens yi loolee dina leen may ñu wane seen liggéey. moom macha allah moom moom euh, saa su dañ koy su dañ koy xaar parce que mooy sunu xeexoo bu gën a rëy bon moo tax man comme aw ma jot bu bëri ñaari yu nekk rek damay fexe tout pare ba defar la tableau yu bëri pour mën a pour wane sama liggéey. Abdoulaye Mbaye nag am mbégte lool nekk ci ay univers yu wuute maanaam fi nga xamante ne foofee lay liggéey. saa su nekk ak li muy yëngu ci wàllu cosaan ak aada mu ne nag dooleem mu ngi bàyyeekoo ci ay collègue ak i kilifam bu weesoo nag cofeel bi mu am ci wàllu aar. bu ñu jógee ci Abdoulaye mbay dañuy wax ci keneen beneen kàngam buy yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football moom Pape Gueye champion d'Afrique demoon na nag nemeeku ji ay mbokkam foofee fi mu fekk baax di Léona nekk ci région. bu Louga foofe nag teeru nañ ko moom tamit jël na décision ne dina jàppale nag askan wa rawatina ndaw yi ngir ñu mën fa am yeneen pap Gueye Sadio Mané wala sax Gana Gueye ñu teewlu euh, reportage bi ñu ci Thierno Fall defal. góor ak jigéen mag ndaw ñoom ñëpp a génnoon ngir teertu seen gan Papa Alassane Gueye nga xamee ni ci dëkk bii la fekk baax ndax waa wu góor fii la bàyyee ko am ndaje mu mag moom la mairie bu na organisé ànd ceek askan wi ngir teertu seen doom ji waaye itam sargal ko. Pape ñu ngi lay nuyu Pape Gueye nañu lool nekk international gagné coupe d'Afrique. indiwaat beneen coupe leen nekk fii ci commune bi ba terrain bi nekk terrain bu moderne moom ngay nekk Sénégal bi nag daldi nay wone bu baax mbégteem ci tertu bu rëy bi nga xamee si moom la ko waa Léona jagleel maa ngi leen di nuyu ba tey ci kàddoom moom doomi marché bi daal dinay fësal yéene ju mu am ngir jàppale ndawi Louga yi rawatina na gi mu fekk baax chers parents et amis de Léona et Louga je souhaite aujourd'hui à mbokk ak waa Louga bëgg naa fi def lu bari maak sama njaboot gannaaw accord ak sama staf dinañ ci waxtaan ak autorités yi tamit ak partenaires yi ci mbooloo mi am na fi ay ndaw yu bëgg doon comme Pape Gueye Idrissa Gana Gueye ak Sadio Mané. moom international sénégalais bi daal di nay profito ci teewaayam ci dëkku baayam bi ngir visiter terrain de football bi nga xamee ni ci la ndawi law na yi di amal seeni jongante. Thierno Fall ñu ngi lay jaajëfal gannaaw euh, bak euh, li nga xamante ne rek mooy ponk bi mujj bi euh, Mamadou Mohamed Ndiaye lañ ciy ànd fa mën nga fecc ku mu tax nga sumi sa tubéy bëgg soobu ci géew bi tamadula pi bum loolee mooy bëgg a daal député bii di Cheikh Abdou Bara Dolly ubbil l'observateur journal bi nee nañu kii di Cheikh Abdou Bara ma nga ca loxo yoon ndax wax ju waxoon jëme ko ci Macky Sall keroog àllarba ci manifestation gi opposition bi woote woon ca place Obélisque wax ji la ñu ne dafa ñaaw i teggin te amul worma procureur de la république di Amady Diouf yéenekaay bi nee nañu moo ca wax ja tax mu autosaisir wu ngir mbir leer ci la sisiré gaa yu Ali Kandé yi ñoom ñu dem ca kër Cheikh Abdou ba ñu yeggee dafa bi bëggoon a dàq policier ndax nee na leen ba tax na kenn du ko convoqué noonu yéenekaay bi nañu nee nañu ni mu doxale ak takk der yi moo tax alkaati yi mbogo mbogo ko taxañ ko dugal ko ci seen wata yóbbu ko ba ñu demee ñu auditionné ko wan ko vidéo yi mu nangu ne wax ji moo ko wax journal bi nañu ci lañ ko garde à vue ay sos wax lu amul ak xotti war may njiit réew di diffusion fausse nouvelle diffamation ak offense au chef de l'État yéenekaay bi nee nañu yii mooy tuuma yi ñu koy toppee article ak article moo nar dal ci baara doole libe nee nañu mooy daf leen ne suufus dara ku nekk nag ak ni nga ko déggee ñu déggee ci xët mu njëkku Les Échos ne moom Cheikh Abdou Bara Dolly arrêté nañu ko ginnaaw juróomi waxtu yu ñu ko auditionné ci division cybersécurité fa la fanaan démb Les Échos mi ngi ñuy leeral lu tax ba ñu koy jàpp sóoraale wu ñu woon ab immunité parlementaire am te muy ab député source wa nañu ñetti tuuma moo ko bàyyi fa mu nekk tir bi nañu article bi dal na ci kawam di lijjanti ak moom xët mu njëkk journal bi di Vox Populi ma nga fay ñaan kii di Cheikh Abdou Bara Dolly na ko yoon teg ay daan yu tar ki mu doon saagaaka sàllawlu di Macky moom président de la République yéenekaay boo xëy xool fekk ko ca Soleil national ñu ci waxtaanu mu séqoon démb ak waa RFI ak waa France ba ñuy wax ba yegg ci li waa yeewi askan wi ne bu seen liste nationale bi bokkul ci élection législative yi ay élection du am ci réew mi la ci président Sud Quotidien lu jëm ci liste Yewwi Askan Wi ñu rejeté ak lu jëm ci li opposition bi ne bu ñu bokkul ci législatif yi kenn du bokk ndax élection du fi am Macky Sall tëj na wax ja a jàll un point un trait la si ne kay nañu noonee la ko waxee yox yoxiwul déng na leen ak lu mën di xew ay élection moom dina am ci réew mi ci date bi ñu ko jàpp turbine jàpp ne Macky Sall ngay xuppaate bay wax ne xamul lan moo tax bu ab dogal génnee te àndul ak bëggu-bëggu opposition bi ñu bëgg a tukkal àdduna bi Le Quotidien xamal ñu ne waa Benno Bokk Yaakaar delloo bi ñu leen dóoroon keroog ca seen rassemblement ba Aminata Touré nañu ay saaga ak i menace dafa jaaduwul te sax du jëfi nit kuy bàkkoone ab républicain la l'info bind na waa bennoo tàmbali nañu seenub riposte ci kaw askan wi ne bu ñu bàyyul seen liste bi bokk ci législatif yi ay élection du am ci réew mi nee nañu loolee wax ju yàqu ak yàqi wax l'info dolli ñu ci ne Mbaye Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye Omar Gueye Zahra Iyane ak yeneen leader yu bi di tiim ba Sonko opposition bi dëkkee songu Macky dëkkee ko yekk musiba ak mbelengaan te kenn dégguleen fa ñu toog la toog te ñoom ñëpp xam nañu xel ne Macky Sall leen dara ndax moo leen defar moo leen yor waaye ñu bari ci ñoom jàpp nañu ne kawe nañu kawe goo xam ne waruñoo wàcc ci terrain bi di défendre Macky Sall journal bi di laaj kii di Bamba Fall moo ki ñooñam ana fan la ñu newoon keroog ba Ousmane Sonko duggee biir Medina xiiroo ak ŋaayoo ci seen biir la ñu gën a mën ci taxaw jàmmaarloo ak nooni Macky Sall yi fajal ko naqaram Aliou Cissé entraîneur équipe nationale bu football bu Sénégal xëy na dénk waa Source A ay mbir yu yéeme ubbil yéenekaay bi Aliou Cissé mi ngi leen di xamal ne benn bés dama doon dem Ziguinchor bi ma ñëwee ba Kaolack taxaw di jël essence am ñetti jeunes yu ma fekk ci station bi ma doon jëlee essence ne ñu grand li ñu bëgg moo di nga dimbali ñu bàyyi a jël équipe xam ne bi ma leen woowee li ñu ma wax moo di bu dee Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeena la yéen tamit nekk noonu ci tawlo beeg safo bi di leen ñaanal kenn du lu jàmm di ko sàkku ci yéen xanaa ñu bàyyi leen ak Pape Cheikh ak oustaz Modou faal ñu doxal bi ci kanam jërë ngeen jëf.